am jëm merci papa na def maa ngi sant ça va ci jàmm alhamdulilah yaay booy na def ça va Abel ça va bien bien merci loo fi def yow non c'est juste Abel dama doon génn ni donc ma ne xaaral ma def fi crochet bu ndaw donc parce que kër gi yomb naa xam ñëw seet si parce que sama xel dafa nekk ci yow si ça. kan ngay seet yow. mais yow Abel am la soxla c'est ça. nan nga may doyee. mais Abel tête à tête ñu waxtaan quand même ah, c'est ça. eh eh eh eh. waaw ci biir. yow ëppal nga kat nga naan ci biir. toogal donc comme l'honneur ne se refuse pas. buuba wax ma loo may doyee. d'accord donc Abel tu sais très bien on est des personnes civilisées donc su ma defee des kilomètres ñëw seet si la wax nañu def match bi huit kilo comme ça nga passe moom ma football ñu mën a waxtaan mais fii nga ma teg muy plein air ngelaw di ma romb tout le temps daf may perturber xam nga mënuma wax dara. devant tes parents. franchement je suis désolé. eh eh nga déglu mu bu baax. je t'écoute mon ko fat góor fii mu la dëj loo fi mën tax doog ko wax boo amee loo ko wax wax ko fii. d'accord père mot bi nga utiliser sax dafa diis mais Abel je te dis une seen doom ji ngeen jàpp ko te ngeen ñaanal ko parce que jigéenu wërsëg la te aussi dinaa ko jàppale ah du ma bàyyi de kii dinaa ko jàppale maa ngi def yow de jógoo pour jàppale kenn góor su ko feet seet si. d' accord d' accord boo amee loo koy wax nga wax ko ko fii ñu dégg. waaw non man malheureusement je suis désolé damay dem. boo jógoon pour jàppale ko du dugg ci néeg bi nga koy fekk. waaw yooyu loolu du dara. jigéenu wërsëg laa du jigéenu wërsëg loolu sa yoon neeku ci ndax du doon sa wërsëg yow yow lii nga fi ñëwee nii kii du doon sa wërsëg. dama bëgg nga déglu moo bu baax. d' accord si y mon gis nga fii bés boo fi dikkati ak loo fi plein air bii nga fi fekk. loolu il faut ñu jéem a xool nu ñuy koy changer parce que plein air baaxul ci ci nit bu bëri mën nga attraper courant d'air non non xaaral dama leen di. kon nga xool nooy changer sa bopp yow. waa d' accord ko y' a pas problème. Abel donc dinaa la woo ñu daje resto comme ça ñu waxtaan. bu fekkee foo nar a jëm de néeg ba ngay dugg doo dem fenn. yaay booy bàyyi leen waxu néeg si. yaa fi di waxi nekk dama bëgg rek ma ñëw ñu sama doom ñi gis ku ñëw di ko wax waxi nekk. toog ñu ci mbedd oto bi. ci mbedd mi la xam ne gisoo ñu fii ñu toog d'accord. dinañ daje resto dinaa ko je vais l'appeler fekkee kër goo dem de néeg ba ngay soxla yaakaar naa di nga ko yéex a gis. Abel kii de nit ko bon la kii de ay pexeem bu jubee ci yow dinaa am la ma naqari sa ndey ji am lu ko naqari nit ku bon la de. dinaa ci bàyyi xel bu baax. na nga ci bàyyi xel bu baax nag. tekkiwul dara.